sëriñ bi mu wax ne alhamdulilahi rabbil alamin nee na jataay bii de xam na lu mu doon lii maanaam itam mësta jóg ci moom yëg naa bu baax a baax. nee na yëg na pas-pas bi bu baax a baax. Eh, nee na kàddu yi de du gudd. gannaaw bu nangoo taxawaay bii nee na bu nu nangoo taxawaay bi tey dañ leen di da leen di seereel ne njabootu Sëriñ Tuubaa gii fi nekk njabootu Sëriñ Tuubaa gii fi nekk ci ñoom lay yeesal ak jaayante man eh, ci lay njabootu Sëriñ Tuubaa gii fi nekk fas yéene gën a fedd li sama laxasaay. nee di fas yéene gën a fedd li ak laxasaayam. fas yéene koo ànd ak yéen ko yéene ànd ak yéen rek. nu fas yéene sax dàkk ci bi. nu fas yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. maa ngi sant bu baax a baax. nee na mi ngi sant bu baax a baax. dimbali nañu bu baax a baax. nee na dimbali nañu nu bu baax a baax. ndax bëggul dara. gisul dara gisul dara. sëriñ bi rek la xool. sëriñ bi rek la xool. liggéeyal sëriñ bi rek itam. liggéeyal sëriñ bi rek itam. mooy ak bëggam. amul leneen leneen lu ci dolliku. amul leneen lu ci dolliku. nee na bëggul dara. wutul dara wutul dara. bëggu sëriñ bi rek. bëggu sëriñ bi rek. wut sëriñ bi rek. dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi. loolu rek. loolu rek. nee na loolu yàlla def na alhamdulilah loolu rek na ci moom. santaat gën naa santaat bu baax itam. na gën naa santaat bu baax. noonu ma ko waxee. nii mu ko waxee. muy njabootu Serigne Touba gii. muy njabootu Serigne Touba gii. man sama jaayante Serigne Touba. neen ak jaayen. ak yeesalam sama jaayante Serigne Touba. ak yeesalam ak jaayanteem ak Serigne Touba. nee na ñu seere na ci ñoom laa koy laa koy def. nee ngeen seere na ci yéen la koy def yéen njabootu gi yëpp. gën a fas yéene gën a fedd sama laxasaayam a fedd ak laxasaayam rek. fas ko yéene ànd ba faaw. te lii xam ne ginnaaw bi am na. nga xam ne jataay bi am na. du ko négé négéti lenn. jëf ji def moo di jëfi sëriñ tubaa ju rëy jii ngeen def nas bu sell bu rëy bii nas bu sell bu rëy bii defe ko nii ñu ko defe defe ko nii ngeen ko defe gën a xam ne ngeen gën a xam ne kilifteef googu ñu ma gii ngeen ko jox ngir ngir sëriñ tubaa nañu xam ne sama kilifteef gépp na ngeen xam ne kilif téefam gépp man jox naa leen ko moom nee na delloo na leen ko ci xol bu tàlli ci xol bu tàlli ci pëste bu wér ci dogu gu metti ci dogu gu lii nu jëm ci lii nu jëm lu fi dese rek lu mu fi dese rek nañu xam ne na ngeen xam ne ñooy samay kilif di ay kilifaam lépp lu lépp lu muy def ci ñoom la jëf jëf ji jóge ci yéen la jëf ji di jóge loolu rek mooy li ci am solo nee na loolu rek mooy li ci am solo jàppoon naa du ma ko wax ci waxtu sax nee na jàppoon na ne du ko mën a wax ci waxtu bi sax ginnaaw jotaay bi am na waaye ginnaaw jotaay bii am na kon dara desut kon dara desut faw mu wax ko noonu rek noonu rek noonu rek la demee bëgguma dara nee na bëggul dara sëriñ bi rek la bëgg liggéeyal sëriñ bi rek la bëgg sama bët bii te bëtam bii ko teg ci njabootam gi nee na mi ko teg ci njabootu sëriñ Tuubaa gi nu nu ma leen yilife mu leen yilife rek fab naa sama kilifteef ak sama kilifteef boppam lépp joxaat leen na fabaan na kilifteefam ak kilifteef boppam gépp delloowaat leen na ko ñëpp na ko ñëpp seereel loolu noonu rek la demee noonu rek la demee fas ko yéene ànd ak yéen rek liggéeyal amul dara lu ne ci kanam lu mu xamee mbaam bëgg ko. lu dul ànd ko ànd ak yéen liggéeyal Serigne Touba. lu dul ànd ak yéen liggéeyal Serigne Touba. ànd ko taalibe yëpp ànd ko taalibe yëpp. loolu rek mooy itam bëggul leen.